d' accord et les sorties ku mel ni comme euh, Amadou Ba mi Mimi Touré ak euh, Makhtar Cissé euh, Aly Ngouille Ndiaye waaw est-ce la yow mi wax ne carrément ay nit yoo xam ne peut-être dañoo laj ji si li doon liggéey ñu ñu ñu ñu dag ñu génne leen. non non xam man dama ne la dama doon fubal <laughs> parfois ma door match bu rëy entraîneur bi génnee ma mais damay comprendre que entraîneur bi am na foo xam ne fu muy toll mën na def ay changement te Amadou Ba ah Aly Ngouille Ndiaye ñoom ñëpp j'ai vu le comportement républicain il sont toujours à la disposition du président donc su dee yow liggéeyal sa réew moo la tax a jóg nga liggéeyal sa réew bañ la changer mais si la as sentiment vraiment que li nga waroon def yëpp def nga ko y' pas de frustration wala ay mer. mais est ce que aussi euh, président Macky Sall profité wul si remaniement bi régler de petits détails internes ñi ñu fi cité ñëpp. waaw yan yan détails internes yow wax ma détails internes yi euh, ban détail interne <laughs> dañoo amoon ay euh, de la république. non non gis nga toujours ay raccourci la. xam nga le délit le délit d' ambition loolu ay raccourci la. ay danga bëgg nekk président gis nga euh, président déjà yàlla moo koy joxe je suis pas fataliste deuxièmement c'est la peuple qui décide ku war a nekk président ala kulli di nga ko nekk. mais parce que nit yi dañoo gisoon des ministres yoo xam ne mun nañoo wax ne woon euh, si quatre derniers mois yi. ay mhm. ay scandale da leen entaché woon ku mel ni comme Mansour Faye ku mel ni comme euh, le ministre Abdou Karim euh, par rapport ak Orixi moo nekk le ministre de l'environnement. Ouais. Euh, le ministère de de de le, le ministère de de wàllum jàng beek jàngale bi ak wàllum enseignement supérieur bi aussi gisoon nañu carrément. Euh, amoon nañu problème yu bëri ñu bëri ci sénégalais ñu doon xaar que ñooñu ñu défenestré leen ñooñu mainten ñu maintenir leen seen poste ñii nga xam ne amutoon benn mbir boo xam ne war na leen ko reprocher tey ñu défenestré leen est-ce que loolu tamit du jéem a rek gën a entaché ñi nga xam ne dañuy reprocher au président Macky Sall ay ambition d'être euh, de vouloir euh, poser un troisième mandat waaw man man ànduma ci sa raisonnement nga baal ma nag parce que bon nga baal ma parce que présent damay poser xam nga xam nga waaw am na foo xam ne dafa toll yow nekkoo fa man nekkuma fa am na information yoo xam ne yoroo ko yoruma ko. mais xam nga waaw xaar ma xaar ma terminer rek xaar ma xaar ma terminer rek su ma terminer rek kii di Abdou Karim dafa nekkoon ay ministres yoo xam ne mën nañoo wax ne sax c'était une demande de la population sénégalaise à ce ñu tigg waaw le ministre de l'environnement affaire Oryx yi dem naa ci plusieurs plateaux j'ai donné mon avis xam nga sur la notion de bien privé et bien public mm-hmm. te aujourd'hui ministres yi d'une manière générale dañu am war a am comportement irréprochable parce que lépp lu ñu def rek day impacter ci présent mm-hmm. donc il faut des comportements vraiment irresponsables te suñ la joxee loo xam ne alalu askan bi la am na noo koy gérer je suis en phase pour la reddition des comptes mm-hmm. loolu dama koy wax xam nga mais li may bañ mooy ñu naan pourquoi lii pourquoi la ainsi de suite moom lu tax mu def ko moom xam na ko mm-hmm. donc tey président ku mu fa bàyyi xam na lu tax mu bàyyi la fa ku mu fa dindi xam na lu tax mu dindi la fa mm-hmm. donc ñun ce qui nous importe aujourd'hui c'est l'efficacité de l'action gouvernementale ak les résultats te loolu du tey lañ koy wax nañu xaar yeeg trois mois xool nga à mu moment là on fera des jugements mm-hmm. sur l'efficacité sur le coaching ainsi de suite mais mënuñu xam nga dañuy bàyyi lu ñu def rek ñu commencé yuux ne dàmm na fekk xam nga donc il faut ce sont des raisonnements simplistes que man vraiment moo tax ma ne raisonnement yooyu man mënuma ci taxaw mm-hmm. avec ce nouveau gouvernement aussi mun nañ si jàngate benn mise reconfiguration politique fii au niveau du Sénégal yow ban lecture nga loolu moom d'accord naa ak yow d'accord naa loolu laa la doon wax c'est-à-dire kuy def analyse politique mm-hmm. soit on est dans la reconfiguration et là on prend le train en marche soit on n'est pas dans la reconfiguration reconfiguration maa ngi la koy wax il y aura une bipolarisation de la vie politique mm -hmm. une majorité forte et une opposition forte parce que opposition bi tam dañuy def seen alliance mm-hmm. pour am poids mais majorité dañuy toog di seetaan ñoom tam dañuy def seen alliance pour am poids c'est ça qu'il faut comprendre léegi nag on l'a élargi avec des libéraux yu dugg mais Sénégal lañ toll foo xam ne tamit moi je suis tout à fait d'accord réew mi na duñ ko bàyyi avec des mains inexpertes mm-hmm. ah oui duñ ko mën a téye pour préserver la paix pour l'intérêt du Sénégal pour Sénégal am jàmm ñëpp dem ci kanam mais moi je suis tout à fait en phase mm-hmm. donc euh, c'est comme ça opposition bi yéen doo leen ci wax parce que ñu ngi def ay ay alliance te tudd leen ko ba tey yéen suñuy alliance ak ngeen tudd. mais l'alliance entre kii euh, di Ousmane Sonko Khalifa Sall Barthélémy Dias Guy Marius Sagna ça peut faire mal à Macky Sall. bu ñu gisee ne carrément la jeunesse est euh, derrière Macky Sall <laughs> Macky Sall derrière ces gens. non non yéen xam nga élection bu bu Macky Sall kii nag yow tamit ah vraiment da ko mës a gagné dañu waxoon dëgg. élection bu ñu dem seen opposition bi. man je je suis pas contre. mais avec mais euh, cette recrudescence de l'immigration clandestine là. non mais justement. il def sax benn link. entre yow <laughs> ma ne Macky li muy def xam na ko très sincèrement. kon moom élection locale yi lay préparer nii Macky Sall. non élection locale bi suñ ci jotee dinañ ci dem. c'est même pas ça dama ne la aujourd'hui Sénégal dañ toll foo xam ne mhm. changement bi ça s'imposait mhm. parce que Covid bi jaxase na économie bi ainsi de suite mhm. ñu joge ci plan de résilience teg plan de relance de l'économie nationale donc il faut vraiment relancer la machine te loolu il faut changer les acteurs il l'a fait très très bien loolu la ñu war a jàngat mais pas nekk ci ay jeux locaux ak affaire yooyu man je pense pas que c'est ça tu parles de la Covid xam ne ne carrément ku wax euh, Covid 19 gis ne ne carrément impact bu mu def euh, par rapport ak euh, économie réewu Sénégal pour ne pas parler ailleurs ban jàngat nga def ci pacte 2 PUDC pacte 2 bi nga xam ne président de la République Macky Sall teg na ko nga centré ko ci wàllum agriculture. voilà ça c'est une question vraiment boo xam ne am na solo aujourd'hui ci fi ñu toll. Mm-hmm. parce que tey il s'agit de relancer l'économie. sénégalaise mhm. l'économie nationale mhm. parce que comme ni nga ko waxee tout à l'heure covid bi am na ay impact mhm. yu doy waar suñu économie maa ngi doon wax tout à taux de croissance on parle même de récession économique donc tey il faut faire preuve d'ingéniosité pour vraiment inverser la tendance am na presque xaalis bu bari boo xam ne président def na ko ci pour doper l'économie li nga doon wax tout j'approuve industrialisation parce que loolu mooy créer emploi l'État aussi mi ngi si jàpp les grands chantiers de l'État ça permet de créer des emplois donc il faut maintenant une adéquation entre les besoins dëkk bi ak la formation des jeunes parce que très souvent on lance soo demee jam ñaajo am na ñu bari ñu fa nekk di liggéey dégguñu olof ils viennent de la sous-région parce que nos jeunes parfois dañ ñeme wax di ils ont pas la formation